asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen baax di leen ziar te di leen balaq yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen baaxoo du seetaan seen émission jotaay bi seen émission jotaay bi dafa am ak gan gu màgg ay gan yu màgg ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk Cheikh Ahmadou mu Xaadimu sol bii di liggéey di jàppale jigéen ñi ngir ñu am yaxanal te duñ topp ci banque yi ba leen di sonal ñuy waa accès képp koo xam ne bëgg ngaa xam lan mooy accès ak fan lañ jëlee nit ñi ak fan lañ leen jëmee na ngeen ñu xaar alxames le douze incha allah à dix heures onze heures demi incha allah kon ak Waarwi TV lépp ngeen di xam ci accès yii na ngeen ñu xaar te na ngeen wéy di abonné.